bi ma joxee kaddu man en tant que procureur parce que euh, président may na ma ni fii dafa euh, scène d'infraction la maanaam mbiru enquête bu ubbee procureur la république bu egsee dafa am lu ko yoon may mu nangul ma ko ni ma jëlal nga wax sama kanam donc maa ngi koy euh, maa ngi koy relever kii waxtu bu tiis la nag accident la bu metti man dama tëdd ay quatre heures du matin commandant compagnie bi woo ma ni ma procureur am na lu xew man ko lu xew mu ni ma accident bu metti am na ci six kilos ci yoon bi ni wax route nationale numéro un ni ma am na nit yu bari yaakaar na ni ñàkk nañ seen bakkan donc ñoom ci leen ñëwee ak sapeur pompier yi ak préfet ak gouverneur ñëpp ñëpp teew médecin yi waa kër docteur liñ mën lépp def nañ ko sapour pompier yi léegi bi nu sayto man dem naa ci morgue ba xool la fa nekk wàññi nanu fanweer nit ak juróom-ñeent yu ñàkk seen bakkan bi ma waxtaanee ak médecin yi ci kanamu commandant compagnie bi nee na ma am na fukki nit ñoo xam ne si seen gaañu gaañu métti na lool ak juróom-benn fukki yoo xam ne si seen gaañu gaañu moo gën a yées li xew niñ ko mën a expliquer benn ñaari oto la yu mag yu naan bus am ay voyageurs ki jógee côté Koungheul ki jógee côté Kaffrine kii jógee côté Koungheul pënam dafa toj mu daal di mu daal di jéng bi mu jéngee daal di fekki ki jógee côté Kaffrine ñaari oto yi daal di mbëkkante pëne toj yi nag am na benn jàngat bu ñu def léegi ak euh, enquêteurs yi gis na ni ñeenti pneu oto yëpp dafa xaw a wàññeeku daal ba xaw a néew doole xam naa loolu daal dina bokk ci li orienté ci enquete bi di pour xam lan moo waral lool. leneen ci des mooy ñaar ñi doon dawal oto yi ñoom ñaar ñëpp danoo malheureusement danoo ñàkk seen bakkan ñi ngi masaw yëpp ñi ngi sant yeneen autorités yi nekk fii ci jiitu mooy l' autorité supérieure mooy président de la République Gracias.